lépp ndax euh, moom lépp lu mu bëgg rek euh, lépp lu mu mën rek ngir yàq seen famille yaayu Lamine moom it taxaw na euh, pour protéger famille wam ñu jàll ci Birima moom nag jabaram daal na koy jàppalu ba noppi nag di ko torturer bëgg nag mu wax lépp li nga xam ni xamal na leen ko wala lépp li nga xam ni rek enquête bi fa la toll si moom ak papaam waaye mel na ni ki nga xam ni moo di Birima nanguwul wax ndax ñu ngi koy torturer torture yu métti sax waaye ba tey nanguwul wax di seq ak ñoom ndax tey Birima bu fekkee ni que dafa sëy ak doomu bandi pour ay enquête tey ji dina ko regretter ndax euh, yaakaar naa ni euh, ay yëfu bandi moom bañ cee dugg rek moom moo gën jaruñoo xaritool jaruñoo sax sax xam euh, parce que rey nit ak naan ci ndox mi rek la ñu yemalee ñu jàll ci Juliette tey moom nag mujjee naa génn kaso yaakaar naa nag nit moom lépp loo xam ne defoo ko jarul tiit jarul ragal ndax nag lu dul yàlla neen la te yaakaar naa yàlla du seetaan jaamam di dund loo xam ni kontaan na ndax nag euh, mi ngi nekk ak jëkkëram ci jàmm euh, ba tax na nag muy waxtaan ak Mariama ci loolu waaye Mariama itam euh, moom it jàpp na ni instant yi mi ngi ci jàmm ndax papaam atte ko te peut-être daan ko daan ak liñ doon xaar na waaye itam bandi yi commencé nañ leen jàpp mel ni kon jamono ji ñëpp na ñu ngi commencé am jàmm ñu jàll ci monsieur Seck moom nag proviseur am na preuve ci loo xam ni ay ñaawteef yi mu doon def la ba tax na mu daal di koy tëjlu ci kaso bi mu daal di koy jàppalu pour nag ñu daal koy corriger ndax moom monsieur Seck rek ñaaw def yi mu nekkee woon ci école bi ak di chantage euh, façon euh, di ko def loo yoo xam ni amaana rek yaakaar naa warul loolu nag tax na tey jii nag euh, moom proviseur daal di jël courage am en main xam ni kilifa la daal di lijjanti li nga xam ni moo di établissement wam ba tax na mu woo police ngir ñu jàpp ko moom monsieur Seck ñu jeexal ak Mariama Mariama nag moom it gis nañ ni kidnappé nañ ko mu mel ni kon bandi yi même ñu ngi leen di jàpp benn benn waaye taxul ñu bàyyi taxul ñu reculer Mariama aussi dafa nekk koo xam ni prudentul benn yoon nekkee euh, doomu ku ñëpp xam euh, am foo xam ni fa la enquête toll wala nag fa euh, justice toll ak say wayjur yaakaar naa war nga def rek war vigilante bu baax a baax waaye nag di moytu di génn di def lu la neex ba tax na tey jii kii ko te lu nekk nag mun na ko fekk kon mbokk internet yi foofu la yem ci épisode 46 bu série Mariama ma jox leen dig ci beneen épisode waaye laataa boobu way leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàttee bës de notification bi pour ngeen